salaamaaleykum. ah. xam naa ni tey moom. buuse. buuse déenati baal ma àq. mais baal baal ma àq baal naa la yàlla nañu yàlla boole baal. yàlla nañu ko fekkee déen yu baari. en tout cas. Mm-hmm. adduna bi yëpp a ngi lay seetaan gën a te sànq ba tey. Mm-hmm. fii lañ nekk di di añ di reer ah mm-hmm. gars yi di la bëggee am ñu lay bëggee am ñoo xam ni bëggee wuñ la am na ñoo xam ni moom fi mu ne nii bëggee wuñ la woon. ñëpp ñëpp di la ñëpp wóorul de loolu moom yàlla bu ma ko am. <laughs> non yow am na ñu la doon bëggee mais ci ñi ma gis même bu dee cent personnes kenn moo la mm-hmm. ci bëggee wu. waay waay. yaa ngi dégg. waay. léegi nag. Mm-hmm. waroo jëm na mbay taali. waxi mag xaw ma mm-hmm. lan. eh ñëw ñëw ñëw sa adversaire rek ñëw sa adversaire rek <laughs> maa ngi lay bëreel Gris ah Abdou Diouf. àdduna bi yëpp a ngi lay seetaan doo waxtaan ak yow waaw le grand. le grand tey nit yi baax ak adduna bi yëpp ak lay xool baalante leen ak. kii kii suma rakk la. waaw suma rakk oh, la le grand le baax di la baalu ak ci kaw. yàlla yàlla na mu ziar lu bees. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. mais baal ma baal nañ la nga baal ñu àq yàlla nañ ko fekkee. ak yu bare yàlla yàlla boole baal ñu fekk déwén yu bare bare bare. amiin amiin amiin yàlla yokk sutura yi yokk xéwal yi bu baax. amiin amiin amiin amiin yàlla musal ñu si ñu bokk si nit ñi koy nekk. su barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin. Boucher ruubekat la xam na ne bu doon bu ma xamoon ne lii la may doyee moom. affaire ah. du sama grand non xam nga moom xam nga moom nee naa yow moom dafa xamul yow suma rakk nga te et puis dañ ma jox ah. cër. yow même bu dul sax man ak sa yaay. ak say xam naa xamoo mais ñoom xam ne du dëgg boobu xale. bi lamb la xam naa ne bu doon beneen mbër. bu doon damay bëre ak waa Fass man xam naa ne man la ñuy supporté. waaw waaw loolu am moo tax vraiment yow moom dama lay ñaanal wér. du dëgg xam nga waaw mm. ñaanal la xam nga rek kattan xam nga yàlla may man dam après nag nga nekk roi des arènes. jeex na jeex na yàlla jàmm yàgg rek grand yow daal nekkal ci jàmm rek ñun daal ñu ngi lay fasaale. <laughs> non yow yàlla <laughs> waaw mais xam nga moom xam nga xale la day déconné. xam nga waaw. te naa la xamal nag gis nga moom lu day wax dama ko samay tànk baaxul samay lii yooyu nag dama lay xamal lenn noonu la defoon rek rek. Ah. rek rek no sa combat rek rek noonu la defoon nee ko da day loolu baaxul ci yow de nee ko bañ del bañ loolu waaw. Ah, xam <laughs> nga waaw dañoo xuloo woon mais da ngay waaru waaw moytu loolu de. waaw combat bi nag naa la xamal leen mbër suma rax nga suma lépp ma mais. xam nga da yàlla def jàmma waaw. noonu lay demee noonu lay demee incha allah. waaw yow moom vraiment. xam nga billaay wallaay damay déplacé sax yow dama la dama la jox cër ba dama laa rus yow borom baax nga yow da nga am respect. da nga am respect ñëpp. lekk avance jàmbur naan ay dama ko grand grand bi grand bi la rus nii de mais. grand bi day tàkk de. non non non mais grawul amul problème man léegi mag laa damaa damaa jëm mag mais nag <laughs> yàlla baax na jëm mag <laughs> ah yow yaa ko wax te moo ah? ah, ko at yi ma am nii moom fukkam maa ko buuse moom mu jeexe léeg-léeg waaw buuse eh Diouf eh amul lool de nga jël avance su jàmbur naan ay damaa jëm mag ak lii man bëre man de man kii ngay bëreel dama ne la. def nga ko def nga ko yàq bëri yi bëri yëpp kenn mënu ma ci. barki alxuraanu karim amul mbëri yi bëre yow kii ngay bëreel giriteur kii suma rakk la te bu bés baa dina xam ni lépp dëgg la kii suma rakk la suma xarit la comme comme li ma rek fonk naa ko moom fonk na ko day ànd ak mbokkam ma ànd ak sumay mbokk mm. mais dugg si làmb ja di ñaan yàlla may ma ndam loolu rek voilà ñun daal ay nit lañ neex mais à part loolu moom dëgg yàlla grand la ak dégg nga dégg nga yow wax yow yow yow say wax yëpp yow say wax yëpp loolu mooy am bopp yow say wax yëpp li ma ci gis mooy yow naroo ñëw pour bëreeg Abdou Diouf da ngaa ñëw pour xeex moom mën a xeex bay xeex man mënu ma xeex man mënu ma xeex xam naa li ma forkaan def xam nga bëréwu ma daanu ma xam naa loolu la bëgg a indi mais nag yàlla non non yàlla na ne xaw ma ko sax luy am man moom bari nekk suma ginnaaw ñoom Samba ah ak jab soxnaam Awa ah ak ñoom Ndiolé ak suma yaay ñoom Daam ah, ah, xam ak ñoom Paa yi mu baax a baax mënoo du yomb de ñoom Ndiolet ñoom ñëpp tamit ci sama ginnaaw lañ nekk. ma ne ñu tudd ñëpp tamit ñu ngi sama ginnaaw. <laughs> mais oui ñëpp affaire daal lañ bëree rek kenn meilleur gañ yàlla baax na. léegi rek ñu may ñaanal non yow mbër yow borom baax nga combat bi nag dafa du du yomb. waaw du yomb day métti. waaw combat baaxul. vraiment vraiment naa bëgg a may sama yow mi féete mag yow mi féete mag. ndegam yow yaa ko xalaatul yombal xumalaak ñun ñi ay xale toll ci buntu làmb ndegam yow yaa ko fas na métteel xumalaak nag ñun gra <laughs> waaw mais mbër moo tax mag ba mag mag jar naa ba ci mag nga mag laa lu lu mag mi xam loo xale waaw <laughs> ah loolu moom xale moom <laughs> waaw dara dara yow nuyul ma nuyul suma yaay nuyul ma kii nuyul xam ni xam làmb la tey bisu baalu ak la mais su paasee man koy safal saf saf xam ne man su may affaire du waaw te combat bi dama ko fonk de bu yoboo nga xam ne loo mën defal barki alxuraanu karim billaahi wallaahi dama ko mm. fonk waaw te ñu nekk suma mm. ginnaaw ñoo xam ne xoolal billaahi wallaahi xam nga waaw mm-hmm. waaw ku mel ni Pape Maman moom kombaam la Pape Maman Douane kooku suma xarit la suma lépp la waaw waaw madame ma ne la ku nekk a ginnaaw rek mi ngi sama ginnaaw Pape Mamadou moomu combat bi combat bi presque moo nekk si kanam si sama côté. waaw waaw mais moo tax moo tax combat bi moom la Pape Mamadou Pape Mamadou tamit mi ngi ci combat bi mi ngi siy sonn trop si sama côté. waaw waaw waaw mais loolu loolu lépp dëgg la yow yow mbër yow yow yow yow yow borom baax nga yow bul wax dara yow kontaan naa. waaw non kontaan naa waaw may sara. non non baax billaahi wallaahi yéen ñaar ñëpp a lekk avance. da ngeen di lekk avance ah. gis nga gis nga Boucher. Gris 2 maa ngi door a xam Boucher. waaw Boucher. maa door a xam bañ naan bañ naan bu koor gi jeexee dañuy tekki seytaane. ah bu koor gi jeexee dañuy tekki seytaane. bu xeer gi jeexee dañuy tekki seetaane. waaw. ah man kat fii muy lekk ay yàppam. di gë lii mm. nii daal ñu te nee moom day xeex ak mm. yow man loolu moo ma jaax. ah mais gannaaw foog mu xeex ndax xam na ne man mënu ma. ah awo nit nit nit lu mu mënul foofu nga koy jaar quoi te xam na man mënuma dama toll ci jàng <laughs> njuuba njuuba eh, njuuba waaw Bouta caaw caaw yow da ko fi bëgg a jàpp jàpp ma benn tànn man kilifa laa tey bisu julli la oh ziar naa la. waaw na. ak ñi ñu ngi ñaanal ñëpp